ci dégg-déggam dafa xaraam ci dégg-déggam xaraam nag baatu arab la lu baatu olof mooy lu nu tere xaraam mooy lu nu tere kon jeex na su fekkee ni sëy ñii jàkkali tax ñu koy tere suñuy takk sëy bi xale yu bëri duñ yor njàpp da ngay xalaat li mu wax xale yu bari duñ yor njàpp te buñ duggee ci jàkka ji duñ def tahiyatul masjid gis naa benn góor ku baax waay sëñ Saliou Touré ca Thiès sëñ Saliou turi du may sëy ci biir jàkka ji ca buntu ba lay maye sëy fekkee naa sëy bu muy maye daf ne nañu def li nga xam ne moom la ñu sariya sant nañ maye suñ paree na ku mu neex nga déglu waxtaan ku mu neexul te nga yàkkamti nga dem mais jàkk yi ma la wax di ci am duñ duñ am laab laab du fa am téléphone yi dañ fay woyu ak ñilay lay woo du jeex mais yooyu yëpp dañ koo tere kon nag gannaaw dañ koo tere ti mënoo yilif nit ñi mënoo laaj xale yi ndax yor ngeen jàpp kenn faaliwu la kon bu boobaa nañ ko def ci biti moom ti dama cee d'accord nañ ko def ci biti waaye nag dafa leeralul waaw waaw dafa leeralul te loolu mooy indi bul ma ba ma xati mais limu wax dëgg la bi ci des mooy sey mën nañ ko maye ci SMS SMS koma su fekkee ne wax nga ak baay wax ak ndaw si ba ñu bëgg la te ngeen soree mën nañ la ko may mais buñ jegee jaru ko mën nañ la ko may ni mane tas ci ci ci lu wóor ni sama jëkkër a woote jëkkëram ne ma woote mu tas sëy dagan na noonu lañ mën a nangoo sëy ci SMS waaye nag na fekk muy lu wóor su wóorul nañ ko teg ci suuf ba am ci lu leer waaye daggan nañu leer lu ba mu leer baay bi woote wane ne may naa la ngeen ne ko nangu naa jeex na say loolu rek la amul leneen an an kaxtu ko binti ye xabiltu aw raddaytu jeex na may naa la sama doom bu jigéen ngeen ne d'accord na say sayee mais nag balaa ma faa dem di fanaani damay ut da ngay ut ñaari seede ñaari seede day am toog ngeen leen may naa leen sama doom ji may naa ko Iran mu doog a dagan nag tant que loolu amul du mën a dagan c'est sa waaw xam nga eh, borom kër gu mokkalul xul wallaahu ahad mokkalul fatiha nu muy jubbantee nit ci diini boroom kër gu jàngul fatiha soo ko ne qul wallaahu ahad mu mu juutal ko soo ne qul a'uuzu bi rabbil falaq mu juutal ko moom xamul dara te mu ngi doom yoo xam ne kenn xamul nu mu toll c'est ça xam nga bu fekkoon ne euh, dañoo yóbbu xale yi daara ñu jàng walla yow mii seen kilifa nga jàng jubbanti xal yi teg leen ci yoon kon bari na loo xam ne duñ ko def bari na loo xam ne duñ ko def mais li ñuy def ñàkk jàng la ñàkk xam la ñàkk leerlu la waaw ah, léegi nag buñ fa yeggee ci ci jamono yoo xam ne ñée ngi euh, maara deytaali ñii ñu nga gëmlee ñii gëm lii ñii gëmlee xale yi xam nga ne ñi ëpp ci xale yi soo leen gisee do xam nga ne nekkoon ci yoon anuñ ci nekkee kan moo leen ci teg kan moo leen ci yedd amul amul kenn kenn kenn ku leen orienté xale yi dañuy làmbatu rek même sax gàmm yi ñuy dem nii dangay dem nii doo gis sax ku la wax ak yow gàmmoo sax dangay dem doo gis ko wax ak yow dangay ngay gàmmu si ba ñibbisi mais doo gis ko wax ak yow loolu nag ah kenn xamul lan la ku ku la yedd ku la yedd wax la ne day leen def nii day leen def nii day leen def nii xam nga takk lam lam xam nga lam daganul yaa ko gën a xam waa jëlee nga takk lam koo ciy jële benn mu xam ko téye ko wa illaa ko mu bàyyi ko waaw ah, ba nga gis koo xam ne day ñëw di la nuyu ay chaîne ci yow sëriñ bi doo wax kii nuyu la takk ñaari jaaro benn jaaro lañ la may may nañ la na jaaro yu bari boo takkee bii tey bu subaa nga tekki takk beneen mais ñaari jaaro ci loxo ñaari jaaro ci baaraam daganul waaw waaw xam nga loolu lépp day dellu ci li ma la wax ñoom ñiy joxe jaaro yi jànguñu sax xamuñu gis nga ku xam danga bàyyi xel sa sa borom wa yuminuuna bil xëy bi da ngay gëm yàlla donte gisoo ko donte gisuloo ko nga def ko sa bopp def ko sa xol def ko sa xel waaye koo xam ne yow sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci lam yeeg jaaru yeeg chaîne yeeg tout même sëriñ bi ngay seeti da ngay fekk mu takk chaîne <laughs> sëriñ bi day takk chaîne day takk ay jaaro te xamul ne lii tere nañ ko am na ñoo xam ne ñàkk xam a tax am na ñoo xam ne xam na ñu ne tere nañ ko mais kii moo tax afara ayt ma ni taxasa illa waaw waaw yàlla nee na xanaa xamuloo ne am na nit koo xam ne ba bakkenam bakkenam mooy bànnee xam bànneexu bakkanam la xam li bakkanam bëgg rek ci la bëgg rek ci la nekk waaye man yàlla duma yàllaam yàllaam pur mooy li bakkanam bëgg c'est ça man gis nga euh, bu leen ma bu leen ma atte fenn fu dëgg ne rek maa nga fa man mi ànduma kenn ci àdduna fu dëgg ne falaane soo ma laajoon lu nekkul dëgg ma ne la lii du dëgg gis nga ni gis nga laaj yi ni mu deme gis nga laaj rek man dëgg rek intéressé wu danaa la wax dëgg ak ni ma la ko war a wax soo gëmee baax na soo gëmul yaa xam gis nga laaj naa leen ne leen yéen ku ma mën a génneel ci réseaux sociaux yi waxu xaadimu rasuul ku ko génne ma jox la cinq cent francs du ma du jóg fii ma toog yoruma ko mais du ma jóg danaa la ko jox fii ma toog yoruma ko waaye duma ma jóg danaa ko jox Seex Alxaaji kan moo yor bànnam ku ko génne ma jox la cinq cent ñi gëm ñëpp li li leen li gëm Maodo yëpp li gëm sëñ Touba yëpp sëñ Touba nekk njaareem Maodo nekk Tiwaaw seetal li ko gëm ni mu toll te amul rajo amul télévision amul dara wala qad wasalna lahumul qawl laalahum yatazakkaroon yàlla boo ko ragalee moo la yóbbul sa wax soo ko ñemee sa wax du dem fen te boo noppee ñu ne ana mooti ba moo doon noppee kañ la ba sëñ Tuubaa noppee kañ la ba léegi ñu ngi wax ba léegi ñu ngi wax waaye ñun ñi ci noppi ñu ne ana mooti ba yow ana Iran yow ndeysaan an du ma ko déggatuma ko sax ñu dafa màgget moo tax way Serigne Touba Cheikh El Hadj Malick Ibrahim Niass mag ñooñu ba àdduna tukki seen wax day bees kee bu baleen rek hmm? seen jëf moo rëy nit bu jëfam rëy yàlla rëyal jëfam nag bul ko tuutil boo ko tuutilee da ngay tuute rek du tee rëy du tee mu rëy eh, mag ñi daal rëy nañu def nañu lu rëy nañ góorgóorlu ci lu rëy ci des nag ma gërëm soxna Bali Mbacke yére bii ma sol moo ma ko indil Tiwaawoon su ma demee Touba këram lay dal des médias ñoo ma fa mas yóbbu benn jour mu teral ñu ma continue dal bi moom moo may woo ni ma foo toll ma ni ko mbàkke maa ngi ci yoon te kat wéruma ma moom xam na ne sax wéruma damay dem rek eh, ren ay tic tac rek laa def ku ñuy wax benn waay laa jël rek taf taf sama côté di ko waxloo di ko laaj rek ba heure bi jeex waaye soxna baa bi euh, ku ma yéem la ndax fi mu bokk ku fa bokk boo boo boo boo boo boo boo wàccee dana ma jaaxal daf ma oo ne ma dimanche yaa nga fa dimanche bii passé de bii passé de yaa nga fa ma ne ko waaw mu ni ma dafa am sama benn mbokk bu jógee Amérique bu la bëgg gis ndeke mooma ma toog bañ julli timis rek xale bi wax ma ne soxna Bale ngi lay seet mu ànd ak ñaari taalibeem ak doomam moo koy dawalal mu ñëw loo yaakaar ci àdduna loo yaakaar jënd na ko indi xajul fii mënuma ko indi fii ma indi lii mu yëkkati mbu mi may ma ko yëkkati parfum bu neex may ma yëkkati lu bëree bëree bëree bëri xam naa bu màggal nekkaatoon suba sax ma dem waaw xam naa ne <laughs> su màggal gi doon suba ma xëy dem seeti ko wax dëgg yàlla mu indil ma lii euh, ma koy sant nag daaw def na ko ren mu def ko daaw dama demul màggal ma demaat ma demaat dama feebaroon mënuma dem màggal te woo na ma ay yoon mu mujj rek rus biñ màggalee ba pare ma dem seeti ko ne ko baal ma rek dama feebaroon moo ma teree ñëw daal di waxtaan ak moom def nañ ko jàmm ci info voilà looloo tax nag ren ñëw na fa ne ma gàmmuwu leen ah gannaaw gàmmu gi ni mu demee ma ne naa ñëw rek waaye dama naroon su gàmmu gee ñu dajale ñëpp ma ni ko ëpp naa def ndax gan ñooñu foo leen di dugal nga dul am waaw waaye daal lii moo ma ko defal bëgg naa na ngeen teg ko li ngeen di doy waar yi na ngeen ko teg lii daal rafet lii rafet na de soxna Baali Mbàkke ma ko jox rafet na de ti jas ni pur la waaw pur bokkul ak yi may sol yow pire kon nag ah nakam ku la defal lu mel noonu da koy sant da koy gërëm ngeen amul lu ngeen ci teg kon kon ñu yeewu ñu ñu ñu wax Macky Sall na tey rek na tey rek ñu wax Macky Sall na téye rek na téye rek bu téyee lépp dana baax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 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laa dum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax